bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di leen balwax di ko baax xam naa li bële rek mooy ndokkeel principal bi ko daf koo dox man tuddut principal daf koo dox principal dafay defar école man ñu àtte ba léegi su école mu fi woon moom di kon xam nañ suñ tabaxal bopp principal jërëjëf Yen élèves yi dañ leen ndokkeel ndax seen ak góorgóorlu moo ekol école ne fi bu ñuy wax école ku de jàng la ak ku de jàngale ak ku de jàngule ak ki de jàng comme yéen a fi lu da ngeen équipe bi fi te ngi ak ñoom seen prof yi yëpp ñu leen di liñ leen woon <laughs> kon ñu ngi ndokkal ñëpp di siyaare ñëpp oustaz Sine moom mention spéciale la parce que wala la boo xam ne nachid li nga wax paa ayul ñun ñëpp bañ juddoo dee ne paa la doon ñaan kon xàgg ci sant yàlla la Lamine Thiam bi muy commencé waa ji ko defal introduction dafa am lu wax di wax arab di wax tubaab di wax leneen ci inspiré mooy sénégalais supp kànja la franco arabe daf ko war a dindi def ko maafe muy ñànkatang ak maafe bi supp kànja gi mooy booy nañ dem kër ga caayen ko quoi ban làng nga wax booy nañ dem gàlle ba caayeen ko ñaata làkk nga wax te waxagoo dara loolu dafa dem ba suñ doxalin bi mu mel ni bi ñëw dama romb wenn sabar gañang ci def lu doy war ma ñëw fekk leen ci diine ngeen di def lu doy war ma abou kay am lu ma bind. ak leen lool waay ak leen lool tay lu ma leen wax ni bépp benn mot bu mu prononcer rek xam-xam bu ngeen ko ci bu ngeen dégloo nak la wax ni mo bu mu prononcer rek xam-xam ngeen ci tire inshallah allah rabbi ma ajibtu bi qawmin admanu kullu mufadin وزادوا عليها وصمة الجهل والفخر إن صادف الإسلام قالوا تأخر ومرحى لمن جاءوا من أصحاب الحجر فكشف لعورات النساء ورخصة من الفحل عار دونه سيمة الكفر أهكذا أهكذا نحميك يا أرض جدتي في كاجور في باول في أرض سالمي ماني ne damay نيو ci lépp lu bàyyi ko ci biti rek dañ cee chronique duy seet baax na ak bon na dañuy jël rek teg ca nag màndargaam réer ak puuga réew rek te duñ liggéey suñ dajee loo xam ne lislaam la wala ku koy ootee ñu ne cëkkal la terroriste la intégriste la waaye ñu ngi accueillir ne lépp loo xam ne baxewoon na ci biti même su baxee koo ci xaw mu lóot ma nga xam ne ñu daan def affaire yu homosexuel ma ne uññi sa awra wi ci jigéen ñi ponkalam góor mu ne yënkate nga sikkiñ bi da fecc gàcce la gàcce la goo xam ne moo gën a xiis ak kiifar ndax nii lañ lay sàmme yow suma suuf si maam si ca Kajoor ak ba ak Saalum yaakaar naa déedéet oustaz Nazir ñu ngi ci sa bés mérito ko ñoo bokk liggéey ma bàyyee ko CFPC nga topp suma kaw ma dem Ziguinchor nga topp ci suma kaw ma ñëw Franco Arabe nga topp suma kaw te lu ci ne rafet na Franco Arabe bii nga xam ne ni programme bi ci ne moom la Lamine Thiam doon junji fii bi ko état bi di bind ñun ñii ci ñuñ copte lañ bokk ñoo ko doon bind taxi yi bam paree ñu def ko livre avant ñu da ko mool di ko valider ñun ñii lañ jël ñu expérimenté wu ko Nasiru Nyang ca maar Alaaji Ablaye Niass man ca école africain américain bu imam Hassan Cissé région bu ne ñeent lañ fi jëloon ñaar ñii ci lañ bokkoon njëkk ñu doon valider programme bi kon Nasiru Nyang, cër bu ngeen ko ci jox eeyoon na ko ñun lañ andi woon fii ñu ab la ñu necc ba mu doon école tey Nasiru yal la yàlla fay say bokk say taalibe ndokkeel nañ la yan ñu yàlla boo defal jàmm ñu bañ a guddee bañ wax ji siin yaa ñu uuti ci li nga xam bi ñu ko daan jéem ñun mënuñ ko waxoon ni nga koy defee tëwoon nañu te yaa ngi ci ba léegi yéen la gën a yàlla gën a jàppale jox la responsabilité salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bonsoir là, chers élèves chers professeurs mes collègues monsieur le principal chers invités voilà j'ai fait un petit discours en guise de remerciement Mesdames, Messieurs, chers collègues, Monsieur le Principal, chers élèves, chers invités, chers tous. Les mots me manquent pour exprimer toute mon émotion suite au choix porté sur ma personne comme marraine de cette journée. Être ainsi mise en avant fait chaud au cœur, vraiment mais cela incite également à rester humble devant une telle marque de reconnaissance. Aussi, au nom de toutes les collègues, je vous adresse aujourd'hui mes plus sincères remerciements. Cette haute distinction me conforte dans la voie que j'ai choisie et me donne encore plus de courage pour le chemin qu'il reste à parcourir, aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle. Encore merci.

di leen wàccee seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi suñu principal Lamine Sène di ci teg sama mag Abdou Salam di nuyu collègue yëpp bàyyiwuma kenn principal ñu ngi leen ñaanal yàlla fi nga bëgg a yóbbu école bi yal na ko yàlla jàppale suma mag Abdou wax na ko sànq bu fekkoon ne 2009 ba léegi yaa ngi ci école bi bon école bi passé na fii benn dafa ko fi at ñu am luñ teg suñu bër loolu bon boo fi yàggoon passé nañ fii bon yal na yàlla jàppale yóbbul la dimbale la ba nga àgg fi nga bëgg a dem euh, samay doom duhuma ustaas ci yéen samay doom ngeen euh, lii wàjjur di def ci doomam moom lay def ci yéen li ma leen di wax nag lii rek la benn xadis laa indi ak ay ndax yàlla daf ñu wax ne hal yastawi lazina yaalamuun lazina laa yaalamuun alayhi salaatu wasalaam wax ne al ulama warasatul anbiya xooleen ñaari wax yooyu nag moom laa leen di dénk yàlla du yemale ku xam ak ku xamut yàlla yemalewut leer ak lëndëm te yonent bi salaam wax ne ne boroom xam-xam yi ñooy wuutu yonent yi alayhi salaatu euh, bon na ngeen góorgóorlu jàng yéen xale yi am réew xam-xam moo koy yore am réew tappale du ko yore am réew fan fen du ko yore am réew jubadi du ko yore te nangeen xam ne yeen yéenay avenir réew mi ëllëg yéenay avenir addina bi ëllëg kenn xamut ci yéen fooy mujj bon na ngeen gën a góorgóorlu futteeku jàng ñoon li ñu war a def def nañ ko ma leen di wax bu doon xaalis rek lañu ut man nekk naa millionnaire wóor na uta Oustaz Abdou Thilam xam ne kii bi ñuy génn bitim réew mille neuf cent quatre-vingt quatre-vingt-un génn Sénégal boo amul visa amul visa fu la neex dem ci àddina bi en quatre vingt dem naa France nekk fa lu mat ñaari weer ñetti weer vacances bu ma buggoon xaalis toofu ut xaalis amul dara foo bëgg dem dem waaye luñ bëggoon ñibis ci jox liñ xam lum tuuti jox ko suñu réew nit ki dafa war a am lum sawir réewam bon na ngeen fexe ëllëg ngeen service seen réew dara doomu aadama bu bu deful dara réewam kooku sa dund bi la ma ñëw ci oustaz Sine ñun amuñ sa fay ñaanal la yàlla yal na la yàlla jàppale fi nga bëgg a yegg yal la fa yàlla yeggale nga toog bu muurloo sa xam-xam ndax nit danay am xam-xam te du muurloo xam-xam waaye yàlla nga muurloo sa xam-xam euh, lii nii ni comme ni oustaz Thiam waxee lañ commencé def lii maa moom rek ci seem bi ñuy kurkuri di kurkuri ba yàlla oustaz si ñëw bi mu ne mu nekk xale ma ne ko ak jëlal mi ngi nii fi ne nii ñun wàcc nañ bon usas gàcce ngaalama yow yaa def lii yëpp yow la du man du kenn yow mi yaa ko def yal na yàlla fay na ngeen xam ne ni ko suñu li waxee Lamine Thiam Lamine Thiam ñu ngi lay ñaanal yàlla it yàlla yokk sa xam-xam leeral sa xol ak sa xel ci xam-xam li nga yootu yàlla na ko yàlla def fii ñu nekk ak yow ñoo la fi formé ba nga dem eh, ba dem université Lamine Thiam eh, jàmbaar la bi ñu ko yoree yore naa ko sixième ba troisième waaye dama ko waxoon ne ko yow doo gone mag nga loola moo nekk ci moom ba léegi nag waaye duñ fàtte primaire bi gis nga première bi mooy lépp ba nga ñëwee nga xam ne mënoo bind a mënoo und b a bind alif a bind e, jiimun ñu jàngal la tey ba nga mën a liir mën a bind ñëw ci ñun bon ñoom it am nañ cër bu rëy ci ci franco arabe bii nangeen xam ne lépp lu ngeen man ñoom la ñoom ñooy départ ba bu départ ba baaxee ngeen baax bu bonee ngeen bon moo tax bëri na lu ngeen am ay jafe-jafe du ñun mënuñ ko defar parce que fa waroon a baaxee foofu passé ngeen foofu na ngeen xam ne ba tey yéen élèves yéen lay waxal ne xam-xam amul lenn loo xam ne tey mën nga ko am du xam-xam moo ko ëpp gis nga ñu def nii tey nañ ko sante yàlla ku xalaatu na arab danañ toog bu ko bind ci tableau euh, bu yëg mu jëkk arab 30 minutes 6 heures ci ngoor ngay dem te doo ko dugg ci classe yi dañ ne daan mbaara war nga toog ci roon garab yi def table yi ci nga daan bind la ngay bind 6 heures sur 30 ñaati élève ngay am du bari boobu nekkutoon luñ bëgg bon nag buñ demee tey ba nga xam ne fii tey ñu ngi koy jàng di koy bind ci table di wax nañu sant yàlla xam ne ñu nit am na résultat yu baax bon ñun tey bu ñu agsee fii suñu mag ñi la ak suñu baay ak suñu maam yi la ñi nit dañ leen di jox leen nga ji rek bu ngeen bu ngeen defaru du ngeen mën a defaru mukk nag maa ngi leen ñaan yàlla xam-xam xam-xam bu barke leeral seen xol ak seen xel ci xam yàlla boole leen ci nit ci àddina yi ñi ñuy dégg yàlla mën na loolu yàlla ko yàlla def wasalaamaaleykum wa rahmatullah presse tàccu leen ma presse balaa ci am Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mbooloo eh, mi xam naa kàddu yu sax du bari du gudd ndax eh, d'abord manewuma wax xam naa ci mbooloo mais également comme waxtu mi ngi jot mais dafa am loo xam ne mënul ñàkk ñu wax ko ndax eh, bu ñu organiser journée bu melni, nii oustaz parrain bi madame Ndiaye nek la marraine mënuma ñak wax ci ñom préparé wu discours mais lum gatt gatt dina am ay cadeau seede yo xam dina ko wax ci ñom waye bala may yëkëti cadeau yoyu may nuyu ak di sargal ñëpp ñi nga xam def nañ déplacement muy les collègues professeurs di nuyu di gërëm bu baax oustaz Abdou Salam tiam ak euh, les belles dames oustaz Sine ñu ngi lay gërëm bu baax ci organisation bi ñoo ngi gërëm également le conférencier Mouhamadou Lamine Thiam xëy na comme ni nga ko waxee dañ la jël comme exemple mais mënoon nañu jël ñeneen ak ñeneen ak ñeneen exemple yi du jeex ci ñoo xam ne ay produits franco-arabe lañ même man mi wax ak yéen rek mënoon naa nekk exemple parce que ci ñi nga xam ne ay pionniers franco-arabe lañ lycée franco arabe bi mu professeurs ci professeur ya fa def cours ci la fait formé fa ay élèves yo xamné actuellement am ce sont des médecins ñi ce sont des ingénieurs le système franco arabe formé wul seulement ay nitu diiné mais mi ngi formé participer activement ci développement réew mi ma man conviction chaque fois que je wax lima gëm Sénégal mënul avancer mënul émerger tant que amuñu

Euh, donc au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux louange à Allah Seigneur du monde et maître du jour de la rétribution paix et salut sur le sceau des prophètes le dernier messager Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa donc un petit mot sur ce que vous avez bien fait de choisir comme parrain et marraine. D'abord le parrain, Oustas le doyen des professeurs, le fervent défenseur du système franco-arabe. C'est un professeur modèle de par sa rigueur, sa régularité, sa ponctualité, son amour du travail bien fait. Oustaz l'imam est aussi un régulateur social un homme multidimensionnel qui a un sens élevé de la responsabilité et qui est très attaché aux textes et lois c'est-à-dire aux règlements. Oustaz loo ko wax mu texte yi la ci wax la ci loi bi wax lay bu quant à la marraine Madame Abidjan, la scientifique que je surnommerai la Lingère. Madame Diaye est une femme responsable, une vraie guerrière, je devrais dire. Madame Diaye est très ponctuelle au travail, assidue, et elle effectue toutes les tâches qui lui incombent dans le plus grand respect des délais, très social et très sensible à la cause des élèves. Madame Abidjan est toujours souriante et sans nul doute, je peux dire que derrière ce beau sourire se cache un cœur d'or. Oh. Je ne saurais terminer mes propos sans féliciter les organisateurs et les, les, les encadreurs du gouvernement scolaire, en l'occurrence Outassine et toute son équipe. Je vous remercie de cette très belle organisation. Comme Nico Alof di je man yaakaar naa ne Je mi bu yemoon fii rek encourager bu et que la fête soit belle Nous commencé